الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب منتبين مع جميع حميد أحمد ربي الحسين حمدا كثيرا لا يريم مسليا على كريم هذا الورى للمهمين أذكر ذا العرش المجيد tey na ñëw ci màggal Porokhane muy dëkk bu sell macha allah dëkk bu am njëriñ ci taarix taarix yoonu murit dëkk boo xamante ne bii soxna jaara waajuru sewul xaddim fi la nekk wax dëgg yàlla ñoo gi fi ñëw am na ci mbégte lool di am ci kontaan lool ñun nag dañoo bokk ci ñi taxaw wàllu alquran ji ñu jóge ba Daaru Salaam daaru Alaaji Ibrahima Dia ànd ak sëñ ma Balla kilifa yu baax yi sëñ Seexuna Ka kilifa yu baax macha allah ñun ñëpp ñu ànd ak ñoom euh, ñëw taxaw wàllu alquran bi di ñaan yàlla subhaana taala ñu fekk ko ay ati at yàlla def mboolem ku fi teew wala ku am yéene ñëw rek sama borom def euh, euh, maanaam lépp lu fi ñaan rek nga bokk ci ñaan googu ndax poroxaan moom ku fi ñëw ku ne. waaw ah, boo seyoon année bu jot nga ñëw fi ku fi ñëw tamit am nga yéene ñëw fi kon dañuy ñaan yàlla rek a ah, képp ku fi teew ak képp ku am yéene teew fi rek yàlla defar say mbir ci barke Soxna Jaara ci barke Xaadim Rasul allahuma balix sawaab ma qara'naahu min wa nawir ma talawnaahu li ruuxi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa li arwaaxi wa ummahaatihi wa azwaajihi zurriyatihi wa ashaabi ridwa wa ashaabihi wa ridwanullahi taala alayhim ajmain wa li arwahi abaina wa ummahatina wa masayikhina wa li arwahi jami almuslimin wassalatu wassalaamu ala sayidina muhammadin wa mawlana muhammadin xaatimi nabiyin wa imam almursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin والمرسلين الأسبياء من المعسلين وصل يا نهمتي على رسول رحمتي ولا خباب نقمتي فبا بكل نسمي يا ذا البقاء وسلما يا صمد على النبي محمد وآله والهمد وكن به ترسمي يا ذا البقاء والخدم مني تقبل خدمي وسر لذا تخدمي بها منير لقمي تاك خيار الحربي تاك منيل الأربي تاك سبيل خير طلبي طبيب أهل سقمي صل على باب الهدى نعي المدى مول الندى ليس الهدى ما هي الردى باب الهلا وكرمي وذل من حل اللمين ذاك المكين هو المتين ذاك المجير والخمين بزاسنا واحترمي ساد الوحيد والمجيد وهو المبر والأهيد من باستقامة يقود إلى الجنان من هميد وسلم يا خدير على سراجك المنير وهو البصير والنصير بنقم ونعم ذاك رسول راحتي وذاك رهب راحتي وذاك ذو الفساعة ذاك رسول الملعمين صل وسلم سرمدا يا من قضاني كم مضى حلل به أهمدا وليكن بمنحمي لجمل النصائر وبعدني بتائي يا ماهي الكبائر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 muy mag wala muy ndaw ñëpp ñoo leen nuyu di leen ziar di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mboolem ñu fi jàng ci alquran sunu borom nangul ñu ko ca soxna jaara mi waral ñu koy jàng yàlla jotal ko ci yool bi ci barke Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñoo ngi ñaan yàlla mboolem ku fi teew nga teewaat fi déwén ay at yu bari ci barke Sëriñ comme ni ma ko waxee rek dafa mënut a ñàkk waaye sunu kilifa rek fi teew ñun mën naa la jotaay bi ñu fi gën a xeebu su ko defee comme ni fi jàng démb ci kamil ñu leeral leen ko euh, démb jàng nañ fi 33 kamil fanweeri kamil ak ñett euh, tey jii suba ñu jàng ñeent fukki kamil ak ñeent 41 41 ñeent fukki kamil ak benn. soo ko boolee mu jox la 74 juróom-ñaar fukki kaamil ak ñeent jàng nañu fi démb ak tey li fi jàng ji limbu si nit yi ma ngi toll ci 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett tux fa ñoo ngi ko jàng 30 maanaam fanweer kon loolu laa lañ fi jàng démb ak tey ñu ñaan yàlla mboolem ñu ko teewe ñu ko doon teewe di ko taxawu muy kilifa yi ma bokk liggéey bi Serigne Balla Gueye sëriñ Seexuna Ka ak ñeneen ak ñeneen mënu ma lim ñoom ñëpp rek ah, a ci soxna yi ñi ma àndal jóge Touba daare euh, donga daare yi muy daare Alaaji Ibrahima Dia ba ci daare ak euh, sëñ Mbaye Guèye Mbaye Sëriñ ñeneen ak ñu bari rek su ko defee ñoom ñëpp rek sëñ Asfal ñoom ñëpp ñu maase rek euh, xam ne soxna si ak ki tax ñu koy jàng mooy Maam Jaara yàlla yàlla may yool ba maanaam yool bi tax ñu koy jàng su borom boole leen ci ndax alxuraan mën na lépp ñoo ngi sant tamit bu baax ki nga xamante ne bii liggéey bi ah, ci moom la jaare sëñ Ablaye Dia ah, soxna ma Anta Dia wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bu baax a baax macha allah gis nañ ni booba léegi waa waa ahlu waa ahlul quran ba ci ahlul xasaay ñi jàng xasida ñoom ñëpp gis nañ ñu leen di bàyyi xel fu ma waxtu moo fu ma fu man fekk rek. damay woo na ma euh, bu ma sañoon ñëw duñ manqué dara wala ñoom fuñ toogee wala ni ñuy naan fu fu mën nekk rek soxna Manta ma ngi ko man na ma ñoom buñ buñ buñ tax soog ñenn ñi te loolu ak mbaaxam moo ko ak tamit bëggam alxuraan ndax ko ne xam ne alxuraan moom waa waa alxuraan fonku leen mooy fonk alxuraan te soxna Manta dafa fonk alxuraan lool sax. loolu moom démb toog nag si soxna kaag ñu bari ñu ji waxtaan kon soxna si ñoo lay ñaanal taxaw gii nga taxaw alxuraan ak bis bi yàlla may la gudd fan ak wér nga yàgg ko taxaw ci barke Sëriñ Tuubaa mboolem li ak loo ci fas soxna jaara euh, borom bis bi mën na lépp kon yàlla yàlla may euh, loo ci bëgg rek suñu borom defal lok ci barke Sëriñ Tuubaa waaw ñoo ngi jégalu baax a baax a baax di ziar ñëpp. di ñaan yàlla ñu fekk ko ay ati at barke Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul salaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ As sëñ Mor Fati maa ngi lay nuyu di jaarale sama nuyoo ci yow mu jaar ci sa bokki bopp yooyu nga xam ne ñoom la sëriñ Tuubaa waxoon ne ñooy sama ñoñ muy waa ahlu quran di sàkku ci yow nuyoo boobu jaar ci soxna maam Anta mi nga xam ne jataay bi lépp moo ko sabab mu jàll nag ci sëriñ Abdoulaye Dia mi nga xam ne jëf ji moo ko jëf jàll nag ci ki fi nekkal maam Cheikh Anta di sëñ Mor Fati ndax mooy sunu bunt ci sëñ Touba mu jàll ci ki nekkal sëñ Touba di sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wéram di nuyu mbooleem njabootu sëriñ Modou Mamoun gépp di ko teg ci loxol sëriñ Abo sëriñ Jiili Eh, di dogal ngànt tuuti rek ndax li tax ñu def ko mooy xatoon na ci ñun ba àgg ci lool ba jéggi dayoo waaye nag kuñ mën a soxla ak fuñ ñu mën a soxlaa buñ sañoon sëñ gaawaa dañuy soxla moo tax bi ñu soxna maamanta sëñ Balla wooye mën a ko moom te lu mën a xew mooy jëkk ku ca topp soog caa topp waaye ñun alali borom gaawaan lañ mu jëf nag jëf joo xam ne dama ciy indi rek tuuti bàyyi ko ak sama xarit bi di sëriñ Mara te ñu bokk tool bi di sant nag bu baax sëñ Balla ci taxawaay bi nga xam ne am nga ko maam Cheikh Anta ak sëñ Touba dañoo bokk benn baay sëñ Touba di nijaayam magama doomi ma doomi nijaayama nijaayama loolu kenn bokk bu dee ci meen ak ci deret bu dee ci meen bala may ñëw ci deret bu dee ci deret maam Balla Aysa moo caat moom la maam Maharam caat loo fukki doom ak ñaar la maam Maharam juróom-ñetti doom yu góor ak ñeent yu jigéen Ahmadou soxna Bousso la am ak Saxeer soxna Bousso Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata am Ibrahima Awañang Ahmadou Khary Diop Ahmadou Soxna Mbay Mamba Laysa muy juróom-ñetti doomi góor tawloo ku ñuy wax Soxna Mbacke Awañang kooku ak maam Cheikh ak Soxna Anta Ndiaye ñoo ñoo Soxna Anta Ndiaye Ibrahima Awañang mi jur Soxna Anta Ndiaye ñoo bokk ndey baay Soxna Mbacke Awañang mooy taawu maam Maharam maam ma haram aram ñang moo ko jur aram ñang mi ko jur mooy bàjjan lenqe awa ñang mi jur ibrahima awa ñang bërgal ma fent ñang di bàyyam kon li mu bokk ak ma haram kenn bokk moom waaye bu ñu dikkee ci wàllu kër ndey soxna anta njaay ibrahima awa ñang mi ko jur ak ahmadou soxna buso mi jur maam jaara ñoo bokk benn baay mi jur soxna astawaalo ñoo bokk benn baay kon soxna astawaalo ak soxna anta njaay ay magal ak rakk lañ ndax seen ñaari baay yee bokk baay kon soxna jaara maam Cheikh Anta soxna Anta Ndiaye ndeyama mu bokk ak maam Cheikh Anta Ndeye kon bu juree sëñ Touba sëñ sëñ gaawaan nijaayama moo tax li mu bokk ak moom kenn nu bokk koog moom moo tax li mu am ci sëñ Touba kenn am waaye loolu lépp li bokk gi baax baax sëñ gaawaan daf ko jaay ci njëggu seer jënd ko doon ab taalibe ba muy topp sëñ Touba dara xewut sëñ Touba bi muy ñëw fii fukki at ak ñeent la toll wala fukki at juróom histoire nettali na lu bari di jaawale fii ci poroxaan ak fële ca xuru mbàkke loolu sëñ tubaa bi mambala aysa di tuxu di dem ngay sëñ tubaa ci juróom-ñeenti weer la toll mam jaara amee ko cay mbàkke bawal bi ñu amee juróom-ñeenti weer la maam mor anta sëli génn mbàkke dem kër nijaayam njakkan dem kër nijaayam yób soxna jaara yóbbaale fa Serigne Touba Serigne Touba toll ci juróom-ñeenti weer maam maam Mor jaara di sogo am juróomi at ba am fukki at ma ba joxu woote fii bi mu wootee nag maam jaara ànd ak nijaayam sëñ bu soobee ñu dem naawel maam Mor Anta Sëli ànd ak Lat Joor ak sëñ Touba ak soxna jaara ak soxna ak soxna Fati Isa ak soxna Anta Ndiaye Mbacke ñu ñëw sanc fii Maba def stratégie de guerre. nekk Nioro fab ci loxol càmmooñ mu bàyyi fi sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ak mbooloo ak Lat Joor bu tubaab yi jógee ci anglais bi buñ dikkee yem ci ñoom mu fab sëñ bu soobee yóbbu naawel bu ceddo yu jógee penk bu ñëwee yem naawel fab sëñ Maxtaar Penda yóbbu ko Kumboof ñoom it ñu ne foofa fab sëñ Maxtaar Kuli Dramé yóbbu Dramé Escale ñu wër ko kenn mënu koo bett loolu moo xaajale woon doomi soxna yi sëñ Aliou Seck wanaar nekk Touba Saloum maam mu nekk ñetti at rek la yàggut soxna Astawaalo soxna Anta Ndiaye Mbacke nekk fi ak soxna jaaro ak soxna Faati Isa àll bi lëndëm te soq ak root ak taxan képp a fi nekk leneen nekku fi ndax booba barke bareegut te sëñ Mbacke Mor Anta Salit yorugut daara ju xumb yàlla dafa dogal ñoom ñaar ñu bokk tolloondoo diggante ci menn at kii ànd ak maam Thierno kii ànd ak maam Cheikh ñoom ñaar juróom benn weer lañ magante ci atum 1966 soxna jaara na leen noppal naa leen ci kër gi liggéey bépp bàyyi leen ma gàddu ko yor liggéeyub soxna Anta Ndiaye yor liggéeyub soxna Fati Isa ndax fi ñu toll coono boobu mu doon toggoo nag di baagante dàggaja ak teen ba ak àll ba looloo ko jàpp def ko tooy dog-dog te booba ci fanweeri at ak ñett képp la toll tooy joojoo fi jëlee soxna jaara keroo bi mu génnee àdduna sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nañ ma ko dencee ci sama buntu néeg bii bi ñu ko fi dencee mu tiim ko dafa wax ne fii ñu ko denc kii ñu tëral fii bu leen ko jàppee jëmmi nit daal di yëkkati kaamilu alxuraan na mook alxuraan yi sunu borom ji ñooyam ab kaamil ngeen denc fii forxaan jooju moo andi poroxaan dafa wax ne kaamilu forxaan ngeen fi denc nit ñi di wax poroxaan bañ ko fi dencee ñu toog fi ñaari at ñu toog fi menn at wala at ma matut soxna Anta Ndiaye am sëñ soxna Fatou Issa am gone muy maam Thierno ñu toogaat ab diir. la tegtale ne ñoom ñaar kenn gisu ci soxna jaara mooy soxna Anta Ndiaye keroog bi nga xam ne yàlla dogal na maam Cheikh war a feeñ jamono te ñëw gi di ànd ak tàngaay dafa yónnee ci sëñ Tuba na ko barki démb la ñàkk yaay su sàgganee ci man dana ñàkk bàjjen te boobu sëñ Tuba ay atam bëreegul sëñ Tuba bind ab téere roof ko ci perom euh, bantub xat xar xar permi fi soxna Anta Ndiaye ne roof ca bant ba na ko jàmb ko te naan bi mu ko jàmbee nee na bi tàkkusaan daa tax ko jot maam seexanta Anta gane na àdduna loolaa tax sëñ Touba daan wax ne ku seex bokkulu téere ba rek du sa morom ba mu ganee àdduna mu bindal ko ab téere jox sëñ Samba Tukulóor Ka di maami sëñ Sidi Moxtaar Ka ab dëkkam a ngi fii bindal ko ab téere jox ko sëñ Mbàkke Mor Anta Sali bindal ko téere ñetti téere yi la maam seexanta Anta takk sa takk yeneen téere ba mu ganee àdduna ñu tudde ko Sidi Moxtaar Kuntiyu kero bi yàlla dogalee ñuy génn poroxaan di dem sëñ Tuubaa nee na bi mu doxee juróom-ñaari jéego nee na tekk taxaw ci gone gu toll ci fukki atak juróom-juróom benn sa yaay faatu ñu denc ko fi bàyyi ko ci àll boo xam ne dootoo ko gis ca dara newu fi ndax kër amu foon te dub dëkk aw xur la woon rek ñun gor nee na bi mu doxee juróom-ñaari juróom-ñaari jéego nee tekk taxaw gestuwaat soxna si nee na daal di wiccax bopp bi daal di daal di ànd ak sëñ Tuubaa dem muy bis bu tiist ñu bàyyi fa soxna jaara ñoom ñëpp ñu siwaat ñu dem Pataar def fa ay at sëñ Mbàkke Anta foofee la génne àdduna mooy taawam soxna Anta Jaay moom ak sëñ Mamor Jaara soxna Faati Anta sax am ak Mamor Jaara Mbàkke Anta génne àdduna Pataar moom maam Cheikh Anta ñoo bokk ndey ak baay ñu denc ko fa mu ñëw sanc Mbàkke mu ñëw sanc euh, Mbàkke Kajoor yàggu fa mu génn àdduna sëñ Tubaa ñëw de Mbàkke Bawal ñëwaat Daaru Salaam maam Cheikh Anta toll ci fukki atam ak juróom-ñeent sëñ Touba am fanweeri at dem sañc Touba am Touba ay at dem ci géej gi dëkk bi gent àll ba dellusiwaat bukki yi dafi dox gaynde yi dafi dox dara nekkatu fi barab boobu soxna jaara bi ak xur wi ma daat ko teen ba sakk maam jaara wéet lool fii kenn wettaliwu ko nit du dox ba fàttaliku ko ndakate sëñ Tuubaa yóbbaale na loolu ci géej gi ba mu demee ci géej gi ba liggéeyal yàlla ba ab liggéeyam àgg mu ñëw gànnaar mu ñëw daaru salaam dem gànnaar jóge gànnaar ñëw ci yeen jolof bi jógee ci jolof ba ñëw njaareem la woo sëñ Masamba Kanni mu ñëw mu ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ne ko kaay seetali ma sa bàjjan ومن قواعد بدا poroxaan soo demee am na koñ fa bàyyi woon ca ñooro jox ko tur na ko boo demee laaj ko nala la wan teen ba boo demee ca teen ba boo ci taxawee wan ko ginnaaw dalal fathi fu muy jeexe rek ci wetu gànnaar gi fa la barab boobu soxna si toll ndax moo buntu nekk sëñ bee tolloo sëñ bee tolloo woon bi mu ñëwee ba ci teen bi mu dal sóoratul fàtti bi muy agsee nee fi tànkam fi ko jeexee tànkam bi mu wàqee xasab yi ndax sëñ Tuubaa nee ko woon guddutoon boo nattee nangamee xasab mooy tolloo bàmmeel ba ba ko nattee la yem tànk ya waaye nee na ci yéem mooy àll bépp ay xur la àll bépp ay garab la waaye gis na ne barabu soxna si suufu su beeñ su weex tàll la fekk ñax saxu ci ci laaj ko la ñuy sikki ji da ciy xeeñ waxtu wane suba ngoon nee na bi mu toogee ba timis la gis ab ceeneer bu bàyyi ko ci kaw leer nañ ñi tiim barab bi di di niit suuf si nee na amoon na ci tegtal waaye ba ko gasee la xam ne fee barabu soxna si mu mu def fa mandarga ñëw ne sëñ tubaa gis naa barab ba sëñ Touba bàyyi ko noonu ba ñu toogee. ba sëñ Touba 27 mu ñëw mu ñëw mu ñëw fii mooy kero ba soxna jaara takkee xuru mbàkke war aw fasam dox jëm si fii am na jigéen ñu takkoon jëm feneen te amoon aw tur waaye tey histoire fàtte na leen kon booy dox jëmal ci yàlla mbooleem ñi ñëw fii sëñ ma Massamba mi fi sëñ Touba yebal sëñ Modou Mamoun mi fi ñëw soxna Fatja mi fi ñëw sëñ ba Basiru mi fi ñëw kenn ku doon seet si nit amut ab bàmmeel lañ doon fekk si waaye tey bàmmeel booboo gën a barkeel bàmmeel yi ci àdduna bàmmeelu borom fanweeri at ak ñett ci àllub saalum bii amut géej amut ndox amut marché amut lenn la fi mën a jëne waaye kenn te sëñ te bañ daayira yëpp ngi àndandoo walwali jëm si saalum bu njëkkee ci bàmmeel bi rek lañ jëm kon payug yàlla moo am njëriñ waaye loolu dafa am solo ci Serigne Touba soxna Anta dafa liggéeyal sëñ tubaa liggéey boo xam ne liggéey melut na moom ndax jigéen war naa nangoo sonn li muy doon doon ndey ci soxna jaara dafa xamoon ne barke bi ne ci kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali selluk soxna jaara gi mën na koo wut soxna jaara bi muy ñëw ci sëñ sëñ Mbàkke moor Anta Sali takkaay moo ko ëppale ci àdduna yaayam da ko jox gànjar waaye maam Anta Ndiaye mi mu fekk si li tax ñu di ko wooyee yàkkale dafa neexutoon a dab bi muy ñëw kër sëñ Mbàkke Mor Anta Sali juróom-ñaar fukki jaam la indaale jaam bu nekk da ngaa war sab sant topp sa ginnaaw kon indaale na fi mbooloo ngalam ngalam ngalam lim ci indaale te booba mooy or wax nañ ne buñ ko peese woon ëpp na ñaari bërigo bi mu dikkee ñi fekk ci kër gi te yàlla dogal ñu di ay bokkam bu bëccëgee day wut yére yu rafet ndax da daan ràbb ay sér daan ko xaflu boo bu ràbbuloo ay sër yu rafet def ko ci bool génn takkaayul ngalam ñaari libidoor wala ñeenti libidoor defal la ko ca fab labub téqal ma defal la ko ca takk ko jox gone na ko dama yëtal ma ko sa bàjjan su yenoo ñu defe na ab añ la koy yët su tekkee ci néeg bi rek fekk muy takkaay ak yére moo tax ñu di koy tudd ne moom day day yàkkale di bay yàkkale ngalam moo tax ñu ne ko yàkkaleeti na ngalam kooku mooy soxna Anta Ndiaye loolu la liggéey ci biir kër kon jigéen ñi war nañoo mën a jàng ci liggéeyub mag ñooñu soxna Anta Ndiaye loolu la liggéey ci dëkk bi boo fekkee ne sëñ gaawaan dafa wax ne alaaji Ibrahima Dia te day am lu mat a bàyyi xel gis nga sëñ Mor Fati Touré alaaji Mun Ndiaye Diop alaaji Ibrahima Dia sëñ a Baaxum sëñ Mandaw gay noonu la tuddoon sëñ Mandaw Gaye eh, sëñ Malle Saw juróom-ñeent lañ ñoo xam ne sëñ Touba leen booleeg sëñ sëñ gaawaan bi leen sëñ Touba di booleeg sëñ gaawaan booba seex xewut amub doo nga xewut sëñ Touba rek xew. sëñ Touba yàkkal gim yàkkal maam Cheikh boole koog mbooloo ne leen ku am ngërëmam am nga sama ngërëm jërëtul ngeen di ñëw ci man lu ngeen am jox leen ko ko looloo toral kuñ seexal ñu tudda la seex ndax xamuñu num tudd dañ naan defalaat na ko lam defaloon Cheikh ba mujj ak ñaan naan seexantaal na ko looloo turu seex bu Cheikh Anta tuddoon Moustapha dañ naan Moustapha na ko kon kun seex rek turandoo maam Cheikh Anta moo tax sëñ Moussa ko ne ko lu nekk yaa ko jëkk am ci yoon wii ci xeyti xayta kii du njar ci soow mi yaa jëkk a fab say mbir ci seeno askan jébbal Serigne Touba nu roowul ak kenn lool li muy tegtal rek liggéey yàlla dafa nangul alaaji Ibrahima nangul maam Cheikh Anta nangul soxna Anta Ndiaye nangul soxna Jaaratullaahi Mariama Bousso lii lépp ci liggéey bu nangu la lii lépp ci liggéey bu nangu la kon ñoo ngi sant bu baax soxna maam Anta ci taxawaay bi nii ngay doxe rek ni la sa turandoo meloon sa turandoo waaje wutoon or waaje wutoon ay yére lim doon waaje mooy jikko ju rafet ak am njariñ li ñu wax léegi ci rek ne doon nga ndey daara te bëgg nga alxuraan mënoo ñàkk bëgg loolu waaye nag dafa am baat bu sëñ Abdou Lahad waxoon ma bëgg ñu bàyyi ko xel lool sëñ Abdou dafa mas am ko ko laaj na ko ndax Bàmba ji yaay ci la sa yow laaj na ko bàmba ji yaayee lépp ndax sëñ Tuubaa noon na li ma amee liggéeyub ndey du ko maye waaye ku sa nday liggéeyut nag doo fi ñëw ba di ci jot kon liggéeyub ndey am na solo euh, seen waajur soxna maam Assa yaakaar naa ne xam naa ko bu yàgg taxaw ma leen xam ko sama waajur mu doonoon ko fonk baay seex te am cër bu mu ko jox ma xam it ab liggéeyam bu mu daan liggéey waaye liggéeyam boobu lu ngeen gis rek ndax soxna Anta Ndiaye kat waxoon na ko sëñ Touba bi ko bi ko maam Cheikh Anta bi muy jox maam Cheikh Anta ma yàgg soxna Anta Ndiaye daa ñëw ne ko ah Mbàkke man kat bëgg na maa waxtaan ak yow mu ne ko looy wax. mu ne ko baatu seex lim nar am ëllëg da nga ko jox fii mu ne ko seex mu ne mu ne ko li lim dox sama digganteek moom jotagu ci dara lii nga gis lépp jaral na ma jaak ko may sab liggéey sax laalagu ko baatub jaral na ma jam waxoon ca Mbàkke moo ko may lii mu am lépp waaye laalagut sab liggéey laalagutub bosam kon liggéeyub ndey lu am njariñ la waaye nag ndey dana liggéey doom yàq ko bu sa ndey xëyee ci lislaam gont ci lislaam nga xëy ci lu dut lislaam yàq nga sa liggéeyum ndey yéen mun leen woon a jëmbat lu dut alxuraan mun leen woon a jëmbat lu weesu ak njub su ngeen ko defee lu ngeen dugg yàlla fekk leen ci sëñ Ablaay gënta doon jàmbaar nit ñi ëpp leen wërsëg dañ koo dajaleel ku ko dajaleel mooy Sidi Muxtaar maam Cheikh bi mu sëñ Tuubaa balaa def dara day natt ab xol day xool sa xol ndax yàllaa ñu gën a jege suñ buumi xol kenn ku ne mën ngay jéem a njistal di wax ci saw làmmiñ waaye la ci sa xol bokkut sa làmmiñ moo tax Moussa Ka naan amaana eh, bu ñu ñëwee Touba yi nuroog waa Touba te buñ génnee ci réew mi mel nay Kooba waaye sëriñ Touba nag mënee su koo nax mënee su koo njublan ku teewlu day tax yàlla bu nattee sa xol ba mu wóor ko ne li ci nekk lépp ak baax la mu defal la aw aw yiw ndokk bi mu bi mu nattee seeni xol ba mu wóor ko ne bu leen joxee alalam ci diine lislaam ngeen di ko delloo kon ñoo ngi lay sant bu baax ndax nit am na jigéen te melut na yow waaye nit na am na càmmiñ it te melut na Ablaay te daa am teraanga joo xam ne ku ko def séddale nga ñëpp dama koy faral di wax toujours ne leen Ablaay Dia man mën naa ko bañ a gis wallahi alazim waruma ko soxla soxlawuma koo gis jëfam laa soxlaa gis te maa koy def ndax sagal na Daaru Salaam sag boo xam ne ku bokk ci Daaru Salaam bu la taraanga joojo dëgg dara doyatu la mooy di def lu baax di ko def ci kër yoonu murit bu ñu nee ku ko def ñu ne taalibe maam Cheikh Anta la mais loolu doy na soo doon joxe mënoo matal faw am ñu la mere boo doon joxe yàlla sax buy taw dana am dëkk yum taw am ñu jàmbatum nawet am ñu doyal bana gàññi kon matale moo yombut waaye nag am na loo xam ne boo ko defee matale ñëpp mooy yàlla lim mataleel ñëpp mooy jant bi ñëpp ko mën a bokk jëf joo xam ne boo ko jëfee dëkk baa cay siggi jërut ngay wër kenn ci dëkk ba dëkk ba nga siggal man kuy dox ngir daaru salaam di sagal daaru salaam jàpp naa ne yow yaa ngi defal waa daaru salaam ngir te fu mu dugal daraam rek danañ xam ne sëñ gaawaan a tax mu def ko fa waaye yëmut ci loolu bu ko doon def ci ay caaxaan nga ne kii kat liggéeyalu sëñ gaawaan waaye foo dégg mu dugal alalam lislaam gërëm na du ko def fu lislaam gërëmut ay nawlee mi ngi fi ñu leen di tuddee ay lamb di leen tuddee sabar di leen tuddee leneen ñu yóbbu ay waykat ca màkkaak lu ne waaye fu mu dugal alalam daaray alquran na moo fa ne wala lu lislaam gërëm kon loolu liggéey bu bu mat a sant yàlla la ndax loolu jëfi yàlla la bi ci des mooy duma jumaa yi daaru salaam jumaa ji sagal na daaru salaam ndax jàkka jooju moom la sëñ Touba njëkk rëdd ci àdduna moomal ko boppam ci dëkk bu moom jumaay Daaru Salaam te bi ko sëñ Touba rëddee sama maam la woo Bakar Mbay Modou Matar Mbay mi jur ma Paata Mbay mi ma jur jur Bakar Mbay ma Modou Matar la àndal da ñëw Daaru Salaam na ko ma Matar defar naa jàkka de bu julli jot bu nodd jotee na nga dem nodd fa bi noddu tisbaar jotee maam Matar Moodu maag Moodu Matar Mbay dem noddu sëñ Touba ñëw jiite bi tàkkusaan jotee nee na sëñ Touba waaxul boppam ca jàkka ja noddu maam Baye Moodu na maam Moodu Matar jiiteel bi timis jotee mu ne ko noddal mu noddu sëñ Touba jiite bi gee jotee sëñ Touba nodd na jiiteel mu jiite mu ne ko Moodu Matar seen jumango moo tax ba ñuy barkeeloo noddu Ibra Mbay gii loolaay cosaan la noddu gi fi maamam njëkk a nodd moo andi woon loola kon nga xam ne moom la sëñ Touba njëkk a kero bi sëñ Abdou Khadir di teg xeer wi sëñ laat taxaw yor ab dees gaare ca wetu penku ga dane sëñ Modou Rokhaya maa ngi taw fekk ñu def plan bi muy jumaa yi njaareem jumaa ji ne ci biir kër sëñ Tuubaa gi ci njaareem plan bi ak jumaa jooju noonu woon benn sooroor la ñoo tolloo yaatuwaay ak guddaay sëñ laat moo ñëw yëkkati ñaari baaraamam na ko sëñ Modou benn sooroor kenn xamut lu may nuru na ko def ñaari sooroor yu mel nii yëkkati baaraam jëme kaw looloo tax plan ba ñu def ci ñaari soroor sëñ Ablaat yi dellu na ko fii de topp poto lamp yi danaa fi defub tëli ba Touba moo tax ma xam ne ala kulli xaalin tëli dana fa am sëñ Ablaat ko waxoon jamono yi sëñ Abdou Xaadir sëñ sëñ Saaliwu nattoon nañ ko kon jumaa jooju nga xam ne mooy première jumaa yi sëñ Touba 1983 ñu dem naweti ba ñu nawetee ba ñëw jaay sunu gerte mu toll ci 3 millions 500 ñu teg ko ci loxoy sëñ Modou Rokhaya maam Njaga si la sekk jëwriñ la ci ku ñuy wax Modou Gueye jëwriñ la ci woon sëñ Modou ne seen gerte gi dama leen ko bëgg a defal foo xam ne duutu yàqu keroog la naal jumaa ji gas fondation bi di ca def at moomu it lañ sos addiyee ji ndax tabax na jumaa ji at agut sëñ Ablaat joxu ko ndigal am benn bis am ku ñëw ci moom na ko sëñ Ablaat da gis doon naa waxtaan ak moom démb mu ne sëñ Muudu Roqee da du ma leen jox ndigal ren ndax damaa dégg ne dañoo tàmbali jumaa yi Daaru Salaam ji ca maa ko waroon a tabax kon dama leen di bàyyi ba jumaa ji àgg sëñ Muudu na naa ah, ji jumaa de xaw ma kan moo koy àggale waaye du doon Muudu Roqee wala bu ko àggalee desu addiya lay doon man de luy tax luy tee ma am ndigalul sëñ Tuubaa ma bàyyi loola ci wuti ndigalul sëñ Tuubaa ci lañ sose addiya ji dajale 3 millions 500 mille dem yët ko sëñ Ablaat na ko ñu ngi tuub jumaa ji nag moom dutu àgg sëñ Ablaat na ko sëñ Modou jumaa ji sa yoon newu ci buñ ko waree defar sëñ Touba yebal ku ko defar kon sëñ Touba yebal Ablaye Dia su ko defaroon it di laaj nga des waaye déclaration bi ñu àdduna bépp nawe mooy ku am sab dërëm téye ko dajale leen yóbbu ci at yi jumaa ji bàyyi leen ma dinaa ko def te defal ko ngir sëñ gaawaan ku jaar ci dëkk ba rek sagu nga ñi ngi koy ñaanal yàlla yal na ko àggale te laat yeneen àggale ko soxna Mante ñi ngi lay sant. sañaas ñoo ngi lay yóbbanteeg sant bu baax di la ñaanal nag yàlla yow askanu njabootu maam Cheikh gépp la war a ñaanal ndaw nga jub nga tege nga ci yoon wi sa dund gépp alxuraan la te loolu mooy mooy jëfi alaaji Sëriñ Ja mooy jëfi alaaji Ibrahima Ja sa baay kenn mësu koo gis lu dul mu yor kaamilub alxuraan bu ko yorut ma ngi koy tari caw làmmiñam kër gum am jàkkaa nga ca bunt ba ñi nga koy sant bu baax di sant nag ki nga xam ne lépp ci loxoom lay jaar mu di Sëriñ Abo yal na ko fi yàlla yàggal yal ko yàlla may fan gudd yal na ko yàlla dolli ak wér sagub daaru salaam la damaa ànd ak sëñ Modou Roqee ñu jóge Touba bi ñëwee bay tolloog armeel yi astafurla raay bi ab silaa na fi nekkoon taqaloo kër sëñ Gede ak kër Baye sëñ Saaxo pàkk boobu ñuy defar sëñ Modou na ma galas ko moom pàkk bi ma ne ko daa mel ni ci loxo sëñ am di la ne de mu ne waa kër soxna maye woon bu ñu wàccee nga dem ne sëñ am di na ma ko jox dama ko bëgg def daaray alquran wallahi ma ñëw ci sëñam dina ko sëñ Modou nee na nga jox ko pàkk bee da ko bëgg a def daaray alxuraan mu ne ma dana yomb lool de waaye nag bi ñu ginnaawale soxna May bi ñu ko defaree dañ ko tegoon ci suru sëñ Abo waaye dama ko ko yëgal rek su ma jox ko ko. ma ñëw na sëñ Modou nee na day xaar sëñ Abo ñëw mu yëgal ko ko rek ndax ciw la nekkoon mu jox la ko mu ne ma déedéet Abo mooy Modou Mamoun du ma lekk alalam. billaahi Abo mooy Modou Mamoun ci man du ma lekk bu doon joj Abo am am di ma jël ko. ndax ku la mujj cib néeg gën laa xam la ca xew te mooma mujj ci mudu maamun sëñ aboo bi sëñ am di waxee mu woo ma ñëw mu ne ma demal jox sëñ bi pàkk ba ma ñëw wax ko sëñ Modou du ma ko yóbbu sëñ ma boo fexee ba sëñ Modou sëñ Cheikh sëñ Modou jot ci de loo bëgg ma defal la ko ma ñëw sëñ Modou na ma galas alali aboo damaa aram du ma ko lekk mooy sëñ Modou Mamoun ci man te ma lekk sëñ alali sëñ Modou kon kooku am na fu mu tegoon sëñ aboo diirub sëñ Modou Rokhaya di dund mos sa am soxla na ma galas ma ne ko mbakk ma ne damaa soxla nangam sama xel di dem feneen léegi am na bis dana ma galas de ñaari million laa soxla ma ko akay gaaw bay baara faal ree ma génn daal di wuti sëñ aboo maa ngi wàcc sëñ tubaay musuma séen jamono yi sëñ moodu ma di ko séen ci mbooloo kum mën a doon bu ma séenee rek jóg na biir du nekk ma du nekk ma fekk ko ko mu sëñ moodu ma ne ko waaw ma ñëw ma ne ko sëñ moodu nee daa soxla dem fe dëkk ba ma toog nekk ko ma ko teg sama loxo ma ñëw yët ko sëñ aboo bi mu koy fay mu ne ma boo demee nee ko avance al ma ko million nee ko danaa ko fay mu ne ma nee ko jërul avance ndax yóbbanti nañ ko fi 900000 yu jógee Amérique mën na caa dugg li ci de it xam naa léegi moo ami yóbbanti nee ko loolu moom na ko faje soxlaam kon ku yàgg topp ay magam la ku am ay teggin la ku am worma la ku yàgg dimbale nit ñi it la ku taxawu it jullit la kon su su nekkee fii di liggéeyal yàlla liggéey bu rey di taxawu sëñ Ablaye mi ngi koy def ci turu sëñ Modou Mamoun waaye di ko def ci turu maam Cheikh kon moom it ne ko yàlla may fanu gudd ànd ak wér maa ngi jégalu nag bu baax a baax a baax a baax ci kàddu yi ndax fi ma toog rek maa ngi ciy jot ay appel yu bari waaye nag man bu ma sañoon buñ may waxloo ci sëñ gaawaan lañ may waxloo bu ma waxoon buñ may defloo ci sëñ gaawaan lañ def la mooy sama lépp kon maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu